leen bu baax a baax a baax euh, di leen jaajëfal bu baax donc voilà très honoré très content d'être là pour la cérémonie des Only Women Awards. déjà li ngay toog Sénégal bëreetul à chaque fois bu ñu la contacter je hors du pays je hors du pays nu mu demee noonu liggéey bi wala xaalis bi moo bëri. amin yàlla na yàlla na yokk no mais liggéey bi la liggéey bi la bon xam nga euh, cinéma comme on dit souvent c'est universel donc dafa am fooy fooy toll yeneen production dañuy gis li ngay def soxla la e voilà le devoir t'appelle quoi nga dem dem tourner ñëwaat mais bon ñàkkul nañ dellu si parce que fii lañ dëkk ay Sénégalais lañ suñu dëkk la quoi donc waaw. ben il se porte bien. cinéma je trouve que ça se porte bien parce que bon il faut gars yi ils font souvent la nuance entre cinéma ak série euh, cinéma bi ça va série ça se passe super bien parce que maison de production yi ñu def ay production tout se passe bien man daal li may ñaax gars yi mooy nañu gën a ñafe xam lu tax def mbir yi parce que tey cinéma su demee si kanam ñun ñoo dem ci kanam euh, cinéma su demee si kanam dëkk bi moo dem ci kanam parce que aujourd'hui le cinéma participe pas à la culture et au tourisme d'un pays donc voilà c'est c'est à promouvoir et puis waaw mooy loolu quoi. ñu bëri na trop ci ci série yi nan la demee liggéey bi la voilà. bi la bon man je dis souvent liggéey bi su setee xam nga après day day topp quoi parce que. comme on dit le bienfait jamais perdu cest à nit moom sooy soo duggee si mbir di si ñafee tegu ci mu leer gars yi suñ ko gisee après xam nga suñu borom day teg loxoom daal affaire yi dem donc man loolu laa ñaax gars yi rek nañ gars yi gën a ñafe gën a liggéey xam nga bàyyi lépp si loxo suñu borom. gars yi nag ci ci acteur bi lañ la gën xamee su ma juumul def nga mannequinat parce que daan la fekk ci ay événement as ngay défilé yàlla ñëw ba nga dugg <laughs> man man mannequinat laa commencé c'est vrai que j'ai commencé par le mannequinat euh, ay booru 2011 2012 depuis ci laa commencé après je me suis familiarisé un peu ak publicité yi affaire demee noonu et puis après bon euh, cinéma bi casting la commencé quoi ci ay casting ci casting casting ba ñu repéré ma et des castings j'en fais toujours ah ba tey nii donc voilà au fur et à mesure affaire yi dem expérience yu dugg xam nga ngay auto formé wu parce que tey on a la malchance peut-être de amuñu école de cinéma donc mais soo xamee un peu le talent que tu as que tu es sollicité par rapport à que tu fais da ngay gën a auto-formé wu rek cest dire xam nga di di di jàngal sa bopp comme on dit tu deviens autodidacte et puis après liggéey bi day tegu quoi. donc euh. parce que cinéma da nga ñëw rek mën ko di génn ci rôle yi di ko jouer bien euh, bi nga njëkkee jouer sa premier rôle yan difficulté nga amoon naka nga def ba surmonter difficulté yooyu. bon bon je dirais difficulté yu acteurs yëpp ah, au début xam nga c'est une de c'est un manque de compréhension de du projet euh, ak stress parce que c'est pas facile de se mettre devant une caméra et de jouer entouré de mille et une personnes mais voilà au fur à mesure ngay dem et puis tu es entouré de gens yoo xamante ne peut-être jiitu nañu si milieu bi xamal la mbir yi nu muy demee xam nga tu prends conseil tu apprends dans le temps ngay avancer nanka-nanka ngay dem ba familiariser ak affaire bi tey suñu tollee fii nii c'est du chemin Eh, di ko sante suñu borom bu baax a baax.